asalaamaaleykum sama mbokk jigéen ñi maa ngi leen di kenn ku ne turam santam yéen jàkkay waa sëñ Mbaye Ndiaye ñi nga xam ne yéen a nu dooleel lu ñu am ci doole yéen a barki Serigne Touba yéen waa jàkka yi sëñ Mbaye Ndiaye yéen nu dooleel ñun yéen tax parti bi ñu doon ci gaynde ndax ñun gaynde ci boppam day am ñu ko mën a mën na nga daan gaynde gu mag de wala nga doon gaynde gu mag waaye gis nga yéen yéen gaynde yu mag yi nga xam ne yéen a nekk ci suñu ginnaaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn su ma tuddee tur nag damay juum waaye maa ngi maa ngi nga xam ne muy sunu kilifa ci kaw kenn ku nekk maa ngi lay jox sa cër di la jox sa wàccuwaay surtout nag ki nga xam ni mooy Cheikh Abdou Lahad Gaynde Fatma ñu ngi koy nuyu bu baax du sukkaat suñuy oom di ziare te xam ne lii politique la waaye ñun laataa politique ñun dañoo bokk ci Daaru Xuddoos te seey ci Daaru Xuddoos ñun sëñ Mbacke soxla loo rek la ñu gëm ak lu mu àndal kon sëñ Cheikh Abdou Bara yow la ñu àndal kon ñi ngi ñaan ci dara yi sëñ Touba suñu boole suñu mbooloo mi dajee fii maa ngi ñaan yàlla na ko suñu borom dooleel ba mu doon ay ndaje ndaje yoo xam ay waay Cheikh Abdou Bara yàlla nga am ndam ci Macky Sall waay ñu ngi sant mboolem ñi fi teew di leen masawu jox na ndax xam nañ ne ci bëccëg ba tey yéen fi wax ji daanaka batu ko woon ndax li ci ëpp solo ñi ba jiitu ñëpp wax nañu ko te mel timis bi ñu bëgg a jot te waruñu fay fekk war nañu jóg balaa waxtaan na jeex maa ngi nuyu ñëpp. ngeen baal ma jërut may limat tur yi ndax lim nañ ko ay yoonu yoon yoon yoon yoon yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm kaddu yi cant rek la ci njàlbeen di sant soxna Ami maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm yow ak mbooleem jàkkee sëñ Mbay Jaay ci seen taxaw bu rafet ci seen takk bu rafet ak ci seen liggéey bu rafet ndax keroog ba ngeen ñëwee foog naa Serigne moo la fa indi moom itam maa sant ci loolu ndax def na lu baax ñu toog nga wax ma ne ma kat Serigne bi ñi ma àndal nee nañ dañoo bëgg ànd ak jëw liggéey ma ne la loolu nangul naa la ko ndax man de li ma gën a yitteel mooy ñoo xam ne nekkuñu woon ci biir yëf yi wala ñoo xam ne dañ cee nekkoon tëye seeni loxo ñoo ñi man ñoom laa bëgg ñu dellu si ñu ànd liggéey ngir ñu yokk booba ba tey nag. la nga ma waxoon lépp maa ngi ci teg sama bët booleem yàgg ñu ànd bi yëpp muy xale yi maa ngi leen di sant di leen gis naa seen taxawaay te xam naa ne lii bu amee tey lu ci bari yéen la ndax yéen yéen a nekk ci biir comité d'organisation bi yéenay dem yéenay dikk maa ngi sant aussi soxna ay Loum mi mu xam ne moo ànd ak yow ak moo itam mboolem ñu nekk ci ginnaawam ñëpp kon daal mi nga xam ne sama xol seet na ci yéen te li nga xamee ne moom oustaz wax léegi foofa dafay sama kër ndax sëñ Mbaye Ndiaye li nga xamante ne bii xam naa moom yàgg na lool mu doonoon lépp ak sëñ Cheikh ko mu yaroo sama kër defal ma ñaar fukki at yàgg la ak mu nekk ma fa ñëw dégg nga ne kon buñ demee ba loolu jógee foofu ñëw dal ko ci li nga xam ne wala at la ñu koy jox kon dama ci am ak cant bu gërëm di leen lool nag ci yow mi wax jaar nañ yàgg lool di la xamal ne jàmbaar nga gis engagement gis naa a liggéey gis sa takk gis naa sa kon li ma li ma lay xamal rek mooy bu soobee yàlla dinañ ànd li nga xam ne ñun ñëpp war nañ ko président Macky Sall baluwaat suñu borom di la xamal ne aussi bu ngeen jàlloo na ngeen ko gën a yaatal ci seen borom ndaw ci seen borom jigéen ñi kenn ku nekk ci yéen ku ko gis bu ci nekkutoon na ko xëcc ñu xam ne bu dikkee de njariñu kese moo fi nekk te bu ànd li ñu bëgg dara ko am kon sant naa la gërëm naa la sant naa ndaw sant naa jigéen ñi sant naa ñëpp di sant itam mbooleem responsable bu affaire yëpp ndax tey jii bis bi mën naa ne ñëpp ak man ñoo ko ànd. Euh, di sant président Moustapha Cissé Lo jël naa ko tey njabar na fi waa këram ñu ngi di toog. di sant le démb ba naan député Abdoulaye Seck Sadaga moom itam ci bëccëg ma ngi woon ci kër gi yabal na xaadim moom itam ñu ngi toog di sant aussi son excellence Fatou Diakhaté moom itam waa këram ñëpp ñu ngi toog ak mbooleem responsable yi parti bi ndax loolu mooy lu yoon man amu ci xej yi amu ci seen li ma bëgg rek mooy kenn ku nekk ak fu mu a nekk na liggéey ci liggéey président ba nga ñu bëgg a kon maa ngi leen di sant. maa ngi leen di gërëm te eh, ni ngeen qui daje fii retrouvé fi loolu nag day wane ne ànd gi mën naa nekk te kenn ku nekk mën ngaa liggéey ci anam goo xam ne anam bu rafet la. monsieur le conseiller encore qui fois maa ngi lay sant aussi yow itam sa taxawaay rafet na yaa ngi doon ànd ak ñoom ci bis bi ba ngeen agsi fii maa ngi sant itam gis naa fi léegi ñi qui xamante ne bi ñoo taxaw na kuréel muy la jeunesse républicaine les sentinelles sant maa ngi lay sant di gërëm di sant aussi la qui en marche bàyyiwuma kenn.

Macky Sall faluwaat en 2019 tey foofu laa toll te lii ci jéego yooyu la bokk moo di wax ak nit ñi dem ci ñoom seeti leen déglu leen naxante ak ñoom fexe ba li nga xam ne moom la ñu bëgg ci ñoom ñu def ko ñu itam li nga xam ne mooy seen i bëgg-bëgg di seen i jafe-jafe lépp loo xam ne mën nañ ko ci ñu def ko lu ci mënul ñu seet képp koo xamante ne bii mën na ko ñu dis ko ko defal leen ko ndax li am solo.

loolu lépp li nga xamante ne bii mooy li nga xam ne mooy suñu aada ca maam Cheikh Anta ba ñu wax naa ko dañ koy dañ koy defal benn colloque américain ca maam Cheikh Ibrahima Fall maa ngi ziar suñu mbokku Baye Fall yëpp ñu ngi ko jaar sëriñ Cheikh ñëpp ndax fi ñu nekk këru ma ba ci ba ci sëriñ Cheikh Mbacke loolu foog naa ne histoire boobu ñëpp xam nañ ko diggante mag yenn ombre ci ñi nga xam ne nekkoon nañu fi kon li nga xam ne mooy li ñu war li nga xam ne mooy li nga xam ne mooy suñu yitte mooy li nga xam ne mooy yitte yi askan wi li nga xam ne mooy bëgg-bëggu nit ñi foofu la ñuy xaar président bëgg ñu jàppale ñu fexe ba nit ñi am courant fexe ba nit ñi buñ jëfe ñu lekk fexe ba nit ñi di solu fexe ba nit ñi di am ndox fexe ba nit ñi nekk ci environnement bu sain bu am assainissement foofu la ñuy xaar te loolu mooy li nga xam ne ñu bëgg ci moom te loolu day am nañ ci yaakaar bu wér a wér a ca man ak lamb ca xamul nu mu doon wax bu nekk ñu dellu si ci réalisation yi te am na ay mesures yoo xam ne jël nañ ko ci te gis nañu ne bu ñu ci yàlla dimbalee wala élection yi ci bari dana saafaru te bu élection yi jàllee ba sunu borom may ko lu ñu bëgg su boobaa kenn nag dafa laaj méthode dafa am aussi defin moo tax ma ne jigéen ñi am nañu solo ndaw ñi am nañu solo ñi nga xam ne nekk woon ci politique ñoo ci ëpp ci solo ñi nga xam ne ñu ngay soog wate ñoo ci ëpp solo moo tax dem rek ci biir kër ga dajale naa fa loo xam ne mën nañu ñaar gone yoo xam ne ku ci nekk ab association ngi jiite di ab leader ma wax ak ñoom ma bëgg ñooñu ñoom itam dugg si ba jox nañ ma seen kàddu danañu dugg si balaa yàgg lii ñu def nii danañ ko def ak ñoom incha allah su ko defee tënk nañ ci benn comité d'initiative boo xam ne dañuy gën a yaatalaat ci koñ yi fexe ba dajale ci lu mat junni wala lu ko ëpp ñu dugg ci dëkk bi programme bi nga xam ne moom la ñuy tëral ñoom ñëpp nekk ñoo xam ne ñu bees la ñu nekk woon nit ñoo xam ne daanañu politique wala xam ndax dañoo war di yokk ndax fu ñu dajee ñun ndog ñu nekk fa buñ jógee fi buñ jógee foofu dem feneen dem feneen déedéet nañu indi ñu bees ñoo xam ne ñu dugg si moo tax bas euh, maa ngi euh, maa ngi kontaan ci li nga wax képp ku bëgg ñëw nañu la xajal nañu la yaatal ndax ñëpp xañ nañ ci te président loolu mooy li mu digle te loolu mooy li mérité ndax mboolem Sénégal ñoo ko bëgg a delloo njukkal kon képp koo xam ne yaa ngi dëkk ci biir commune Touba Dey maa ngi lay tàllal loxo di la xamal ne bëgg naa nga ñëw ak boo man di féete ak côté boo man di nekk maa ngi lay lancer un appel solennel ne la ñëwal ñu ànd liggéey ci loo xam ne lépp njariñu dëkk bi lay doon ndax lépp loo xam ne da nga ciy yëngatu suba ba moon jot li nga xam ne fa la jëm mooy loo xam ne lu delluwaat ci askan wi la loo xam ne njariñu dëkk bi lay doon leneen ñëruñu leneen gitteeluñu moo tax ñuy woow ñëpp lii wax ji bu ko dégg ak foo mën nekk tijji nañ suñuy bunt muy guddi muy bëccëg muy waxtu man li doon na ñëw ñu toog waxtaan xool naka la ñuy lëkkaloo ba ànd liggéey ba li nga xam ne mooy suñuy bëgg-bëgg li nga xam ne mooy suñuy jafe-jafe li nga xam ne mooy li Touba mérité en tant que dëkk ci biir Sénégal waxuma sa en tant que dëkkub diine waxuma sa en tant que li fas li Serigne Touba doon ci réew mi wante en tant que dëkk ci biir Sénégal ay sénégalais dëkk boobu mu nekk la deuxième ville du Sénégal loolu ñu mën ko xëcc mu digg jariñ waa Touba ci loo xam ne du ànd ak benn discrimination day am ci biir dëkk bi am ca sa njàng képp ku dëkk Touba lu cay sa àq ñu jox la ko ba nga xamante ni kenn du ne kat man yëfi dañ ma cee botti li nga xam ne mooy li réew mi ko dañ ko war a séddale ci équité dañ ko war a séddale ci ak maandu ñëpp yem ci te ñun loolu mooy li nga xam ne ci la ñuy xeex guddi ci la ñuy xeex bëccëg te loolu mooy li nga xam ne boo li nga tax kon ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp wax ñu gërëm di nga xamal ne daal suñu xol sedd na fi dinañ jox rendez-vous ci bis yi di ñëw ndax tey dër nañ benn programme boo xam nekk ñu ngi sur le terrain am nañ ay ndaw yoo xam ne aussi ñu ngi dem sur le terrain chaque mois ñu def une grande manifestation invité ci ñëpp ñu animé parti bi ndax politique aussi c' est de l' animation waru ñoo toog rek kenn ku nekk di fas seetaan il faut ñu animé ko ba nga xamante ne bii nit ñi danañu xeeme nit ñi danañu mën a digg di ci mu nekk mu nekk tribune boo xam ne li nga xam ne moom lu ñuy bëgg a wax li ñu bëgg a jotal danañu ko man ba ñëpp xam jublu gi ba am même niveau de compréhension su boobaa foog naa ne li ñu bëgg dana ko euh, dina yomb ndax nit ñi bu ñu bu ñu rek li ñu bëgg ci ñoom danañu ko def ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp.